directeur de cabinet ba tey mu jiite ab institution mu mel ni moom Abdoulaye Daouda Diallo ci wàllub kilifteef moom am na lu bari lu mu ci gañee waaye gëdd bi moom muy influence dafa mel ni ñàkk na ci lu bari réew mi quotidien di ñu xamal ni premier ministre Amadou Ba jamono ji nag dafa mel ni dañ ko dooleel ndax mooy wutu ci tàggat yaram ak sàmm ji ba Diatara ak Ali Saleh ba Diatara ak Ali Saleh nga xamante ne ñoom it dàkkal nañu seen ànd ak Benno Bokk Yaakaar ànd Idi ak Macky mi dak Sud Quotidien dikkaat na ci ci anam yu yaa di ñu xamal tamit ni Abdoulaye Daouda Diallo jamono ji moom la ñu dénk conseil économique social et environnemental ci jamono ji nga xamante ne premier ministre Amadou Ba dañu ko yokkal sax ay ndombal tànk le témoin yéenekaay moom mel ni kiy tuutal dogal yi nga xamante ne njiitu yoom mi jël na ko yéenekaay bi di xam ne ni Macky dafa rek jékki-jékkalaat fas yéene wëyal liggéeyam bis bi le jour dikkaat na tamit ci demu Idrissa Seck waaye tamit waaye tamit lu ñu tabb ADD ci bopp conseil économique social et environnemental ministère des sports ak élevage bi nga xamante ne dañ ko dénkit Amadou Ba yéenekaay bi jàpp ni jamono ji Macky dafa mel ni ku yor balom rek di football maanaam mooy jongle ci tabub Abdoulaye Daouda Diallo moom suñu naataangooy jàpp ni moom ADD am na lu mu gañe waaye tamit am na li mu ñàkk sas bi ñu dénk nag amadu Ba bis bi les jours jàpp ni lu diis la rawatina ci tabaski bi ñu dëgmal naka na ne Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante ne ci la ñu jëm loolu yëpp mu war koo boole ak liggéeyu premier ministre bi nga xamante ne tamit diis na lool yéen wi diis na waaye le quotidien le quotidien dañu xamal ni jamono ji tembe Macky Sall dafa mel ni moom moo yor gi ñaar dialogue bi nga xamante ne woote na ko ngir mu amal remaniement maanaam yeesalaat gouvernement am gouvernement bi ak waa Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien dafa jàpp ni démission bi nga xamante ne réew mi def na ko ci dafa mel ni coalition présidentielle bi ci boppam ma ngay deltu ginnaaw l'évidence di ko ci feelu yéenekaay bi li muy xam ne ni mooy ñàkk sa Seck moom ngir Macky Sall lu diis lay doon rax ci dolli coowal ñetteelu mandat bi nga xamante ne jeexagul tension sociopolitique bi nga xamante ne tamit mu ngay fi tembe mu jàpp na tàng lool ci njiitu réew mi Macky Sall Assane Samb ci réew mi quotidien moom giseew ko noonu ci rubrique au delà des faits taskatu xibaar bi dañu xamal ni kon lii yëpp nga xamante ne Macky Sall nas na ko jamono ji muy génn sa sekk ci coalition bi Karim Wade ak Khalifa Sall mi nga xamante ne dañoo nekk ci guute ci wàllu yoon moo tax réew mi jàpp ni Macky jamono ji ma ngay liggéey ngir fexe ba faagaagal kii di Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne fàng ci xët bu njëkk bu Vox Populi moom jiital Pastef mel tontu Idrissa Seck ci yéenekaay bi meerub di ko xamal ni tal na leneen lu dul xëccoo ay statut chef de l'opposition te moom li mu jàpp mooy ku ne xam na ana kan ay kan ndax bu ñu wàccee ci terrain bi lépp dina daal di leer kàddug Ousmane Sonko ci Vox Populi yéenekaay bi di ñu xamal ni tamit moom opposant bi dafa fas yéene dooraat lii di nemmeeku tuur ak ay activité yam mu mel ne Ousmane Sonko talul coowal Idrissa sa Macky Sall sëy boobu nga xam ne tas na ba noppi yor yor li mu ci a naxe mbay am déet observateur dafa jàpp ni Idrissa Seck mi jàppee boppam ni ab chef bu ko doonee yi tamit dafa di ab njiit bi ñu beddi la tribune di ko dëggal ndax Idrissa Seck mi nga xamante ne opposition bi dafa mel ni dafa am lu koy moytoo bennoo geddu ko wala sax mu génn ca moo tax la tribune jàpp ni Idrissa Seck moom daanaka ñàkk na lépp ci wàllu politique doomu ngor yi bëgg ñoo ñàkk seen suuf enquête yéene kaay dikkat na ci coow li nga xamante ne ay fan a ngeen nii daanaka moo fa jippa ay jàmmaarloo yu metti am fa diggante ndaw ñi ak takk der yi rawatina gendarmerie li waral coow li suñu naataango yi dañu xamal ni gendarmerie fi mu nekk ab zone la bi nga xamante ne dafay am ndox moo tax au commandant de la gendarmerie jël dogal daa di toxal bërëb ba foofee ca Ngor dikkaat na ci accord bi nga xamante ne moo lëkkale woon mairie bi ak gendarmerie ci weerub août atum 2022 ci suuf soosee nga xamante ne état ci boppam moom moo ko moom justice bi ñu jàpp ni moomul boppam ci Sénégal Sud Quotidien def na ci ab dossier yéenekaay bi di xam ne ni gannaaw conseil supérieur de la magistrature ci boppam doxalee maanaam traitement yeneen dossiers yi loolee tamit mun na tey loo xel CAP di coordination des associations de presse taay na di xaar coowal uh, kii di Pape Ndiaye ngir sàkku ñu bàyyi taskatu xibaar bi kuréel yooyee ci bés bi la jour nee ñu ay plan d'action la ñu fas yéene tëral ci ay fan yu ñu dëgmal combat bi mu dëgmal digganteem ak Eumeu Sène sunu làmp dafa jàpp ni Balla moom jamono ji ci danger la nekk li ko waral yéenekaay bi dafa jàpp ni ñaari laj yi nga xamante ne def na ko ci digganteem ak njiital Tay waaye tamit tolluwaayam ci wàllu physique ak Balla Gaye mi nga xamante ne dafa mel ni wuute na ak ba ñu xamoon loolu yëpp moo waral yéenekaay bi jàpp ni jamono ji combat bi mën na gën a métti ci doomu dubalees bi doomu Sénégal bi nekk ca Naples Kalidou Koulibaly mu mel ni Juventus bàyyi ko benn yoon record yéenekaay